Ah, loolu moom xam nañ ko. looloo taxoon nga waat waat wu rëy boobu doxoon ci diggante komba Modou ak Eumeu Sène nga waat ni bu ko dóoru nga daanu nga dagg sa kurus. Modou Lo Eumeu Sène la boo nga xam ni noonu la mën na deme ndaxte Modou du woon combat boobu bu mu war a ñàkk ndaxte yàlla suñu boroom bu la na lay dimbali day am nit ñoo nga xam ne dalay boole ak ñoom hmm. maa ngi koy nuyu sax ku baax la nit ku baax ku gore la hmm. ku jafe la ci doomu aadama yi ndax bu la yàlla joxee succès yàlla jox la ay nit ngay ñaanalante ak ñoom ngay déggante ak ñoom di laami soo ci yu baree baree baree baree baree baree nit ku baax la daal baax daal wax dëgg yàlla moom lañ xam ci moom. Hmm. nit ku lay ñaanal da koy fonk fonk doomu aadama dafa am solo ndax yàlla doomu aadama la gën a fonk ci li mu sàkk. Hmm. waaw. ma ne dóor mu daanu bi. lu tax nga waat ci. ba wax ni dangay dagg sa kurus. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dañ koo gisoon. Hmm. te boo ma jege woon dañuy ñëw ba ci biir géew bi am na ñu ànd nag moom damaa ñëw ba ci biir géew mën leen fii la ko mu fii la diw fii lay daanu mu ne ma nga man ko li ma la wax nii na nga ko jàpp fii lay daanu loolu kay loolu amus loolu loolu dara hmm. déedéet loolu dara